Assalamualaikum, man la Astou Thioune coordinatrice jeunesse féminine bu zone nord ma ngi nuyu wa taax kaw di jël nuyo bi di ko ci loxo Maguette mu yobale wa taax kaw gi di wax ni jeunesse féminine bu taaxi kaw centre mun njaay ciow tay ñu organiser ben ndogu mu nek suñu deuxième édition buñ ko défé ni ñu koy rafetlu jeunesse féminine bi yëpp jeunesse féminine bu nord bi yëpp ñew andar ndok ñom pour dolel len ñu defar ndogu jox ko waa koñ bi jox ko waa taax kaw jox ko ñëpp di wax ni nag waa taax kaw maa ngi leen di wax ni leen ñu tànn candidat bu baax bi muy Amadou Ba mooy candidat bu baax bi ndax li Macky Sall liggéey ci réew mi kenn ku nekk xam na ko te Amadou Ba rek moo ko mën a àggale kon nag waa taax kaw maa ngi leen di soññ bu baax le 24 incha allah ngeen teel a yeewu yéen ñëpp ànd vote ji bu ngeen xëddee ba julli ba pare rek daal di voté ji incha allah bu ngoonee ñu daal di ndogu rek daal di jubilé. asalaamaaleykum waa Taax Kaw asalaamaaleykum waa centre mu Ndiaye Thiaw asalaamaaleykum waa koñ bi man la Ndeye Diop présidente commission féminine centre mu Ndiaye Thiaw Benno Bokk Yaakaar Thiès ma jël sama nuyoo di ko teg di jël sama nuyoo di ko jiital ci di ko teg ci loxoy Maguette Diop coordonnateur coordonnatrice mandataire centre benn Bokk centre mu Ndiaye Thiaw di jëlaat sama nuyoo di ko teg ci loxoy Babacar Meng. borom mouvement PDL di jëlat sama nuyo di tek ci loxoy Ousmane Diop borom mouvement Awa di jël sama nuyo di tek nak diko di ci loxoy wa centre Moundiaye Thiaw Benno Bokk yaakar ñom ñep bayuma kenn suma ma damay joom au fait que wa koñ bi ñun ñong leen di woo di leen loxo di leen wax ne koor gi lañ nekk ta ku ne koor wéru partage la ñoo ngi leen di tàllal loxo di leen wax la vingt 24 incha allah dimanche ngeen tee a génn teel a voté ji kan tànn la candidat Amadou Ba dès le premier tour ñu fal ko dès premier tour incha allah di leen wax ne nag Amadou Ba candidat yi bari na trop mais Amadou Ba mooy le meilleur kandida ndax moom nit la koo xam ne am na capacité bi am na intellectuel bi. bokkul ak yeneen candidat yi nga xam ne dañuy jiix di jiixi buñ ko dimanche allah bu lundi dañuy liggéey duñ fi nekk sax di set programme bu ñu war a def di leen wax ni carte bu bi am bopp fas bi boobu mooy bu baax bi ñoo ngi leen di woo yéen ngeen ñu ko incha allah ñu gagné dès le premier tour. Assalamualaikum wa Taaxe Kaw wa waa zone nord asalaamaaleykum waa Thiès kay asalaamaaleykum waa Sénégal aussi ñu ngi euh, nekk fii euh, wuyu ci invitation wu suñu jigéen ñu ñu yànj yi suñu jigéen ñu ñaawul yi waa centre Moundiaye Thiaw alhamdulilah nag biñ leen fekkee ci liggéey bi liggéey bi ñu ko tàmbali depuis depuis des mois xanaa ñu wax rek ne proximité bi dafay dafay continuer pour gagner suñu centre muy centre Moundiaye Thiaw un affaire aussi pour gagner pour gagner toute la zone nord Moi centre gagner encore une fois dit encourager suñu nga la jeunesse la féminine du mouvement de la coalition Benno Bokk di aussi les jeunes ñi nga que ne ñoom fi fekk El Fakhir ñu ngi nuyu ñëpp ñoom Fall di leen wax na liggéey bi continuer na liggéey bi continuer ñi nga xam ne nag ñoom lañ ko séqal yàlla def ñoom ñoom ñu nekk ñu aay loolu ci manipulation aay nañu loolu c'est des as de la manipulation ñu mel noonu nag ku ko séq ak ñoom doo tàyyi doo jëkk ci di wax ak say dëkkandoo seen leader liñ ko démb dégg rek mu wax bërki démb ne ñun suñu candidat bi ñu seqee liggéey am na foo xam ne dafa teg loxoom moom mu daal di jël loxoom daal di koy seppi foofu képp ku am xel war nga xam ne loolu warta mën a nekk parce que koo xam ne inspecteur kese nga naka ngay seppee loxo directeur général des impôts et domaines naka ngay seppee loxo ministre de finance te simple agent rek des impôts nga ñuy wax sénégalais yi nañu gën a xool ñi nga xam ne manipulation kese kese kese la ñuy def li ñu am yëpp manipulation moom moom moo leen ko may ku manipuler nag ba nekk candidat ñu seetaan mu manipuler manipuler ba yorum réew soo deful ndànk réew ma fa nga xam ne moom moom lay mujjee parce que manipulation kat yoru réew encore une fois moo tax bu ñu ci proximité bi bu ñu quelques jours wax fa trop yalla yalla def ñun suñu quartier bi trop trop trop wante nak am centre bi nga centre bi centre bu am solo la mm. waaw waaw ci ci zone nord encore une fois di remercier suñu jigen yépp yi nga xamné ñom jël initiative bi la mm. waaw waaw te ñi ci centre aussi nañu jël un exemple ah. mm. waaw nañu jël sen exemple ñu ngi leen centre encore une fois ñu gëna a ko la rek may waxat man nak euh responsable régional bu PLD du mouvement mais parti la parti des libéraux démocrates bu bu Omar Sarr mom la nek responsable régional ici au niveau de la région merci merci asalaamaaleykum ma ngi nuyu ñëpp di euh di encourager xalé yi macha allah xalé yu jambar lañu xam nga man mo naaj sax baña wax waaye comme damaa nekk seen yaay ah ñu woote ma ñëw wuy si leen te ñu ñëpp ñu bokk lu ñuy liggéey ñoom ñu am ci taxawaay boo xam ni sax dafa jéggi dayoo kon bu ñu taxawee def li ñuy def nii ñu mag leen nekk ak ñoom bokk ak ñoom ci centre bi kon war nañu mën a ñëw taxaw wax leen jaajëf di gërëm tamit suñu càmm yi nga xam ne ñoom fi ñëw muy usmaan Diop macha allah fi la ndogoo Babacar Mbengue mi ngi nii seede bañ leen dem si yàlla si ñu doon nit ñu baax nag ndax centre Moundiaye Thiaw bii macha allah dafa metti bu rek rek dañuy waxante dëgg te di ko waxante centre mu Ndiathio metti na ndax xëy na sax tey neex na ndax ku mel ni Babacar Mbengue ñëw na taxaw ci sunu wet ku mel ni Ousmane Diop ñëw na daxa ci sunu wet waaye ban fi nekkee man ak Maguette Diop mi kese ah metti woon na nag metti woon na trop tey it nag yàlla dafa dogal ñu ñu jër ñu ñu judd rek bëgg président Macky Sall ànd ak moom nag ca ba mu dooree ba nëgëni ba jëloon réew mi jox ko ko te ba tey bàyyiwuñ ko ñu and ak moom bu tay jii bo lañu président Amadou Ba yalla nañu sargal bu altine ci heure bi ci jé yonent bi waye da ñi nga xamni da mui suñu càmmiñ yi muy babakar meng mi ci sama wet ak Ousmane Diop ah ñi ngi leen di gëreem ñom bu du won ñom centre bi dina gëna am problème. euh wa Thiès di nuyu ñëpp euh, di leen wax ni leen ñi ngi leen di balu ax ci cheikhou Ramadan Mubarak di ñaanal ñëpp koor jamm ak salam, ñu jéxal ko ci jamm ak euh di wax nak ni wa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo taxaw fi tay di wax ak yeen plus particulièrement euh la commission le pôle jeune parce que tay ji ñom ñoo waral ciow li plus particulièrement euh, les jeunes filles du centre de vote El Hadj Moundiaye Thiaw ma leen di féliciter en tant que mandataire et coordonnatrice du centre m'a ngi leen di sant di engagement détermination ak dévouement bi nga dañ ko am en bandoulière duñu xaar yoon ma di yo, ne yu am taxway lañu donc m'a ngi leen di sante bu baax nday donc ma jël nuyo bobu tek ko ci sa ak nga joxal yi di wax duñu sori te ci ki des jeunes di di nuyu tamit également ma sœur Astou Thioune bi nga xamanteni momit mom moy responsable jeunesse féminine au niveau de la commune nord di gis wax ni gis nañu seen taxawaay yéen yéen la relève de demain tax ngeen suñu xel dal bu baaxa baax ah man nag damay ñëwaat di sant di gërëm ñëpp suñu mbokk yi nga xamante ni dañu àndante ak ñun ci Benno Bokk Yaakaar euh, ci centre de vote bi muy ñoomin Ousmane Diop euh, comme ni ko ñëpp waxee ñi ma précédé vraiment ak euh, Babacar Mbeng ñoom ñëpp ñu ñëpp ñoo ànd bokk centre de vote bi le président de awa de de AFA di Malay Diop moom tamit ñoo bokk centre de vote bi ak tous les responsables daal ñoo xamante ni ñu ngi fi ak lay sekk également am na fi représentant donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa Sigi jot na aussi Kab Diop Diop le responsable des jeunes du centre qui est bu am taxawaay Kogurum, au passage damay profiter de cette opportunité de lancer un appel à tous les Sénégalais à tous les Thiessois surtout parce que Thiess, nous dañuy faral di wax ni n'a jamais été euh, au pouvoir Thiess n'a jamais soutenu euh, le pouvoir donc pour cette fois-ci au moins nañu bokk ci li nga l'avenir de demain parce que euh, Amadou Ba moy le meilleur candidat le meilleur profil c'est le candidat de Benno Bokk Yaakaar di ki nga xamanteni mo dalal xel yi parce que nak dañu jëp lo xam lu am importance muy gaz ak pétrole ñu war ko jëfëndiko ci dëkk bi kon nak tay li dalal xel yi mooy teg ko ci loxo yu wóor ko xamante c'est un homme d'état et une force tranquille te Sénégal jàmm rek mom mo fi xaj te jàmm rek lañu xam donc voté len le candidat de la stabilité le candidat de la paix muy le candidat Amadou Ba may waxat nak encore une fois au soir du 24 mars 2024 na ñepp laxasaayu teel a jóg teel voter ji jox carte yi marron beige bi nga xamé mo am bop fas bi am photo bu taru bi ci borom sacré yalla bi ñi ngi len di sanni sànniwaat encore de lancer un appel pour que candidat bi ci Sénégal d'une ci génération future je vous remercie. Euh, salam alaikum wa Sénégal salam salam wa Thiès salam salam wa Tahikaou. donc maa ngi Al Fakir, représentant coordonnateur de la commune zone nord monsieur Massayer Gaye donc avons ñu ngi ñëw fii ànd ci ak euh, la commission féminine de la commune de zone nord euh, à leur tête soxna Assou Thioune bi coordination de la jeune commission féminine te ñu ngi ñëw taaxi kaw fii ci centre El Hadj mu Ndiaye Thiaw ànd ci ak sunuy yaay ak sunuy tante sunuy ndijaay euh, sunu kilifa le responsable du le représentant du du parti PLD mu ngi toog monsieur Babacar Meng ñu ngi nuyu aussi monsieur Ousmane Diop mi nga xamante ni ñëw na fi sànq di président mouvement AWA di nuyu aussi soxna Maguette mi nga xamante ni moom mooy mandataire ak coordinatrice su centre Moundiaye caw Euh, di nuyu aussi la présidente de la commission féminine bu euh, centre centre de vote El Hadj Moundiaye Thiaw donc comme ngeen ko gisee euh, tey ñu ngi ñëw taaxi kaw ànd ci ak commission boobu ci li nga xamante ne mooy le ndogu partage bi ñuy def chaque veille chaque tabaski chaque ramadan tey jii nag mu tombé ak li nga xamante ni mooy campagne électorale ànd ci ak sunu candidat monsieur Amadou Ba donc tey maa ngi jël kàddu ci turu sunu coordonnateur monsieur Massayer Gaye di féliciter tout d'abord euh, ñi nga xamante ne ñooy organisatrices yi macha allah ndogu mi yaatu na neex na te euh, gis nañ taxawaay bu baax a baax donc message bi ñuy lancer message wu éveil la message euh, waxtaan ak sunuy mbokk ndaw ñun ñi nga xamante ni tey ñu ñoo nekk l' avenir de demain donc je dirais même pas l' avenir de la la jeunesse c'est maintenant comme dit notre euh, notre candidat monsieur Amadou Ba nee ndaw tey la du du suba ndax tey nga koy defar mu nekk bu ko defee suba mu mën la jëriñ donc ñu ngi woo askan wi yëpp ñëpp ñoo xamante ni muy Thiès muy Sénégal mais plus particulièrement à Taxi Kaw ñu xamal carrément enjeu bi nga xamante ni. moo nekk ci élection présidentielle yi ndax ñëpp xam nañ ni candidat 19 lañ waaye am nañ ci kenn koo xamante ni moo ci ràññeeku moo ci ëpp xam-xam moo ci ëpp compétence moo ci ëpp taxawaay moo ci ëpp charisme moo ci gën a mën a fédéré moo ci gën a mën a yee indi jàmm ak stabilité ci réew te euh, képp ku wax présidentielle képp ku wax président képp ku wax njiit di nga wax taxawaay ak euh, xam-xam ak kàttan bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom te ku xam président Amadou Ba xam ni amul fonction bu mu mës jaar ba def fa ay jéego yu am a am solo donc euh, ci ay kàddoom da ngay dégg mu ni moom rénovateur la lépp loo xamante ni def na ay refonte sax lay def maanaam lépp lu xamante ni dafa bees mu koy gën a beesal lu baaxul mu fexe nu mu baaxee ndax jaar na impôt domaine gis ngeen taxawaay ba mu fa def refonte totale la fa def ci lépp loo xamante ni mooy doxalin ba mu jaar ministère des affaires étrangères lépp luy taxawaay ci relation extérieure xam nañ ko mu jaar ci wàllum koom-koom muy ministère des finances économie ak finance ñëpp xam nañ liggéey bu ama am solo bu mu fa def ba tey jii Sénégal buñ dee ndamoo ci tali yu bees autoroute muy euh, hôpitaux ak lépp luy taxawaay gis ngeen ni moom dugal na ci loxoom te à cent pour cent bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo bind loolu donc ñu ngi woon ndaw ñëpp ci li nga xamante ni mooy vote utile mooy vote bi nga xamante ni mooy tax yow sa sa ëllëg mu mën a am kaaraange nga mën a am jàmm nga mën a am sécurité boo xamante ni lépp foo mën mënti dem ci Sénégal di nga ko mën a dem tey nag dëkk damay wax ni dëkk kenn du ko xeexee dëkk kenn du ko fowee présidentiel kenn du ko caaxaanee kenn du ko fajee mer da ngay xool ki nga xamante ni moo baax ci ëllëgu su Sénégal nga dem voteel ko tax 19 candidats yëpp gis nañu le président Amadou Ba mooy le candidat idéal le candidat parfait le candidat de la stabilité le candidat

lépp lu ñu am seen ñaar dërëm seen ñett dërëm ñu ngi koy indi bokk ak waa taax kaw donc ñoom ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan bu incha allah au soir du vingt le euh, le vingt quatre dimanche incha allah ngeen dem voter la président Amadou Ba vote yi nag yomb na da ngay teel a xëy sangu ba set parfum wu dem su urne ba boo duggee. bot bu la neexee nga jël cinq waaye bi ngay njëkk a jël na fekk mu nekk bopp bu bi am bopp fas bi mooy président Amadou Ba moom ngay jël jël sa enveloppe boole ceeg ñeent muy juróom bu la neexee nga dem ca urne nga dem ca isoloir ba nga dugal enveloppe bi président Amadou Ba ngay dugal boo ko dugalee doo ko tëj da nga koy dugal doo ko collé doo ko def dara ni nga ko dëggee noonu da nga koy dugal ci biir rek nga ñëw dugal ko ci ci urne bi loolu mooy façon bi nga xamante ni moom la ñuy voté donc ñu ngi remercier waat ñëpp di féliciter waat encore une fois la commission féminine bi nga xamante ni ñoo nekk fii à leur tête soxna Astou Thioune di ñaanal aussi yàlla may ñu jàmm ñu fekk ko bu baax a baax te incha allah li ñu def fii dinañ ko defaat suba bu soobee yàlla xaar accueillir sunu président le président Amadou Ba le président de tous les Sénégalais incha allahu rabbi je vous remercie.